tey jii dañu ñëw fii euh, ngir xamal euh, askan bi sénégalais yi ak àdduna bi problème yi nga xamante ni moom la ñu dund ci terre bi ndax dañu nekkoon ni ñii ñi fi ñuy waxee ni ci site la bu nga xamante dañ ko jox les brocanteurs donc ñoom it ñu ngi tolloon ci trente corps de métier la ñu daje woon yoo xamante ni ñu ngi won ci Colobane ci maanaam toogawaay boo xamante ni matoon na sept hectares foofu bu ñuy wax Colobane ñëpp xam nañu lépp lu ëppoon ci banlieue ak fépp ci Sénégal sax ñëpp fa daje woon mu nekkoon benn euh, benn maanaam sàq moo xamante ni lu mat euh, euh, téeméeri junni kër ci lañ doon sukkandiku pour am lu ñu añee lu ñu reere lu ñu ndékkee ñu xëy bi màbbal foofu ci anam yoo xamante ni anam yu jéggi dayoo yu àndul ak sutura ñàkk kersa yoo xamante ni ci lañ ko dindee woon ña fa nekkoon lañ leen fay mënuñu seen naan sax potu ndox bu mat ba ciy def leneen ñooñu nag ñu nekkoon ay boroomi kër doon ci yor seeni njaboot dem ba ba loolu jàllee ñooñu ñëpp tey jii ñu ngi taxawaali ci biir dëkk bi defuñu dara amuñu ñu nekk fii nga xamee nag dañu ne woon état daf leen ko jox fii ci Sébikotane mu toll ci ñetti hectare ak genn wàll loolu mi ngi nii ñu koy gisandoo maanaka am ndànd foy foy la bu ñu leen indi samp fi seen yenn bagage yoo xamante ne sàcc nañ ko bu yàgg sax ñu ci bëri sàcc nañ ko ñi ngi nii defuñu fi dara te fii dañ fay waroon a defar ay bërëbu liggéeyukaay ay garage defar fi ay toilette defar fi lépp li nga xam ne doomu aadama dëkk yittewoo ngir mën a toog liggéey liggéey bu normal bu mucc ay ku ko waroon a defar loolu APIX bi nga xamante ni moom la état du Sénégal dénk projet boobu pour mu def ko moo ko waroon a def waaye alal jooju ñu fi waroon a def ñeenti at joxoon nañ ci bu yàgg bailleurs yi joxoon nañ leen alal jooju mu toll ci trois milliards APIX sàkkal ko pexe maanaam APIX dafa détourné xaalis boobu trois milliards lañ leen joxoon ñeenti at ba tey jii defuñu fi dara àll baa ngi nii nii sa ndaw fii brocanteurs yi lañ ko jox ak artisans yi nañ fa def alal ji nañ ko fa war a defee ñoom ñu mën continuer seen seen liggéey mën a dund seen dund na lu ko may danañ décembre dañuy dañuy dawal seen terre boobu mais nañu xam ni terre bi dawagul nañu xam ni terre bi dawagul mënoo nous nit ndax ba ñu jógee ñun def nañ xayma état du Sénégal choses. na des impactés Dakar Pikine ba Dak ba fële euh, ba Tëngéej leen milliards 50 milliards nag bu bëgg ni dañuy dawal seenu terre loolu ay naxaate la xanaa kay day fekk kay ñun ñu def ñu sax ay actionnaire dans ce cas ndax projet boobu ñun dañ ci am wàll terre bi bu dawee ñun suñu cinquante milliards a ngi ci biir dañuy ñu def ay actionnaire mu gën a gaaw